waaw Mouhamadul Busayri sa audio bii <clears throat> xam nga luy luy laaj bi mooy man def naa taxasus ci nangam defuma taxasus ci nangam loolu lépp du wax ji yow da bëgg ñu waxtaan ci xam-xamu xadis nañ waxtaan ci xam-xamu xadis maag yow da ngaa bëgg ñu waxtaan ci xadis bu wér ak bu wérut da ngaa bëgg ñu waxtaan ci bu daif ak ak ak ak xadis munkar wala da ngaa bëgg ñu waxtaan ci xeetu xadis yi am da bëgg ñu waxtaan ci ni ñuy génnee xadis da bëgg ñu waxtaan ci ni ñuy wéralee xadis ne Cheikh Ababacar tëj groupe bi léegi maag yow ñu commencé insha allahu rabbi ñu waxtaan ci loolu amut lu ñuy xaar ndax xam naa ci dara xaw ma si dara su boobaa yow da nga ci xam dara nit xam ci dara beneen bi ndax yow ma dégg ci yow jàmm ak ma dégg ci yow xay maanaam wax ju ñaaw boobu laa bëgg a wax dégg ci wax ju rafet ak wax ju ñaaw ju ci man ñaar yooya ñoo yem ci man ndax yow sa wax ju rafet ci man yokkut ma dara sa wax ju ñaaw ci man wàññiwut ma dara nit ku ne la lay jëriñ mooy say jëf ak say kàddu ndax nag man damay attaqué borom xam-xam yi man attaqué ma benn borom xam-xam yal na ma yàlla musal ci loolu loolu ak tuuma la rek boo xam ne da koy teg sama der bi waaw tuuma la rek da ngay attaqué saxaaba yi da ngay xas saxaaba yi loolu tuuma la rek boo teg ci sama der bi waaye yàlla xam ne ne attaqué ma benn borom xam-xam man borom xam-xam yëpp laa bëgg borom xam-xam yëpp laa àndal waaw. waaw léegi Aliou Ndiaye nañu wax ci nañu wax ci xadis amul benn problème nañu wax ci xadis bon xadis maanaam waxuma mbel mbel ju bari waxuma ko wax ju bari man laajuma la ko li ma la laaj mooy kon léegi man maay laaj comme yow dangay ngay iddia tadif xadis yoo xam ni ay boroomi xam-xam yu mel ne ibnu kasir ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy kiyal léegi nag indil ma benn li ma lay laaj nii sarax ma rek bul jëllaale di indi ay wax indil ma abin njaay euh, te te sax Babacar Babacar Diallo bëgg naa mu tëj groupe bi ma lay laaj ci ay ahadis nga may yow tamit nga may laaj ma lay tontu bon ba bañ koy tëj dama lay laaj yow Habib Ndiaye indil ma xadis boo xam ne Ibnu Kasir dafa ni daif yow nga ni saxiix nga indil ma tasxiixu xadis boobu ak tamit bon Ibnu Kasir nee daif yow léegi yow nga ni Ibnu Kasir ne juum na fi njuum teg Ibnu Kasir boobu laa bëgg nga décorté ko nga ni ma Ibnu Kasir fii la juume xadis bi ci fadlu Ali lay wax Ibnu Kasir nee na daif la te saxiix la indil ma tasxihu xadis bi maanaam xadis bi lu koy wéral indil ma ko tegal ma ko décorté ko ñun loolu lañ bëgg nga defal ñu ko bu ko defee ñu xam yow nan nga nan nga nekk xadis waaye toog fa nga toog naa xadis bi ibnu kasir a ngi nii dafa tabiib xadis bi nga xam ne xadis ah, ah, xadis yi nga xam ne ngëneelu ali te te tamit loolu du ay wax loolu du ay wax musaylimatul kazaab indi na benn indi na benn daani alquran la loolu ay fen la waxuma loolu tëkkale yu ma leen nag li ma wax nii tëkkale yu ma leen mukk du ma leen tëkkale kooku moom respecté naa la pour pour waxal loolu rek waaye dama laa jox misaal rek li ma la bëgg wax mooy toog fa nga toog di wax te indi woo dalil laa bëgg wax rek indil ma xadis misaal ci ni ibnu kasir xadis bii wax na ko nee na wérul ci fadl ali te léegi nag nga indil ma tasxiixu xadis bi lan moo ko lan moo ko wéral taxrijal ma ko loolu laa bëgg a nañ ci dem si xadis amul problème waaw ama ama sa sual bii nga laaj ma xam nga ibnu kasir dafa wax ne wa ma yatawahamuhu baadu alxawaam bal masulun bayna kasirin minhum an aliyan huwa saaqin ala alawdi fa laysa lahu aslun walam yaji min tariqin mardiyin yuctamadu alayhi walasi sabata anna rasul sallallahu alayhi wa sallam walladi yusqi nnaas ci maanaam eh, albidaaya wa nihaaya xaajub juróom-ñaareel ci paasu trois cent cinquante cinq léegi li ma ci soxlaal mooy dafa wax ne xadis bi amut aslu waaye amul ci amul aslu dafa wax amut benn tariqa bu wér buñ ci mën a sukkandiku te bi boo xoolee borom xam-xam bari andi nañ ko ku mel ni euh, Shazan al al al Fudayli andi na ko ci sanadam euh, boo xam ne mu ko jëlee ci amirul muminin mooy Ali ibn Abi Talib di nga ko fekk it ci manaqib bi nga xam ne euh, ki nu mu tuddati al Xawaarismi yi moo ko liggéey. di ko fekk ci faraidu euh, samtin di nga ko fekk ci kansul umal imaamu euh, ba tey ibnu hasakir indi na ko ci taariqam ci isnaad boo xam ne dafay jógee ci ibnu abbas imaamu suyuti tudd na ko ci jaamia euh, ba tey xadis bi tabaraani indi na ko ci isnaad yoo xam ne rijaal ya ca nekk yëpp siqaat lañ jëlee ci abi saidin al xudri noonu mu andee noonu la ko Ahmad génnee ci manaqibam maanaam jëlee ko ci moom itamit ci riwaaya boo xam ne dafay jógee ci Abi Saïd kon su ko defee lii nga xam ne moom wax na ko ne tari amul benn benn tariqa bu ci wér léegi nag mën naa la indil tariqa yi ci wér euh, ku mel ni euh, masalan masalan Ahmad ibn Ambal bi muy indi sax euh, téeréem boobu mu tuddee mu mu mu mu mu tuddee Fadailu Ali ibn Abi Talib indi ko ci dégg nga Euh, maanaam borom xam-xam yu bari andi nañ ko léegi nag man li ma lay laaj yow xadis bii andil ma tariq yii ma tudd ci téere yii nga indil ma ko wax ma fan la daayifee maanaam maanaam maanaam ñi nga xam ne ñoo ko génnee ci téere yi parce que dañuy weccoo pour ñu dem mënu ma laa jàngal léegi génneel ma ci téere yi maanaam maanaam maanaam asaanid yi ñu indi yëpp nga wax ma ne ma asaanid yi yëpp fii la daayifee ma dégg comme yow da ngaa jàpp ne asaanid yi yëpp dafa daayif andi ko wala wala li ma ci wax ci Ibnu Kasir dégg nga boo noppee nag da ma tontu mooy comme comme comme dafa wax ne amul benn yoon boo xam ne maanaam yoon bu jub la bu ñu mën a sukkandiku ci hadis yi léegi nag kon fii ma tudd la ko yépp ana fan la ci duut baaraam wax ma fan la andil ma sanad bi nga wax ma la ma fii la duut baaraam sanad bii dégg nga dégg nga diw andi fii la ci duut baaraam sanad bii diw andi fii la ci duut baaraam sanad bii diw andi ci fii la ci duut baaraam léegi maa ngi lay xaar ci Euh, euh, salaamaaleykum Alioune Ndiaye noonu kenn du ko taxriji xadis noonu kenn ko taxriji xadis téere yii yooyu ngay wax xadis teewul dafa teewul wéru maanaam teewul xadis bi wérul da ko fekk fii da ko fekk fii da ko fekk fii loolu noonu kenn du ko noonu kenn du ko kenn du ko kenn du ko tasxiixi xadis léegi Ibnu Kasir ak fu mu mën a nekk Ibnu Kasir nee loolu wérul mais danga naan ma danga naan ma sa ahlul xadis yow tuddal ma ahlul xadis ñi nga xam ne ñooy ahlul xadis bi umma umma bi ci bopp laa la wax ahlul ñi nga xam ñooy muhaddisuun yi ñu xam muhaddisu as sunna muhad parce que parce que ci ñuy wax ci sunna lay la nekk muhad ahlul xadis ñi nga xam ñu ñooy ahlu moom lañ xam ci xadis wax ma ci kan moo ko tasxiix bul ni ma bul ma shaaban bul ma kii bul nit da nga ko fekk ci téere nangam téere nangam noonu kenn du ko taxriij xadis noonu kenn du ko taxriij xadis wax ma sanadu xadis bi cëslaay gi wax ma cëslaayu xadis ba am amirul muminin rek ana cëslaay gi kan moo ko ka yaani kan moo ko taxrij da nga ko fekk ci téere nangam da nga ko fekk ci téere déedéet noonu kenn ko taxrija bul ma indil ay téere yoo xam ne téere xadis yooyu wérul même bu ci même bu ci nekkee wérul indil ma cëslaay laa la waxal cëslaay gi xadis bi cëslaay gi ci nekk indil ma ko ak foo ko mënti fekk xadis boobu yabqa xayr saxiix imaam Busayri man man mënuma laa takkal jabar ba pare amal la ci doom c'est-à-dire que yow man dama laa tuddal ay masaadir xam nga nii kenn du ko taxrije eh, taxrije xadis man doo ma wax ni ñuy taxrije xadis taxrijul xadis premièrement da ngay wax téere yim ñëw ba pare maanaam téere yi nga xam ne ñëw na ci yëpp tudd naa la ko léegi nag comme yow ki ngay défendre yow da ngaa wax ne moom dafa wax ne amul benn tariqa buñ ci boo xam ne tariqa la buñ mën a sukkandiku léegi indil naa la ko man duul maa la utal doom yow yaay dellu ci téere yi bu fekkee ne yow ki ngay dépendre kay yow comme da nga doon gëstu ci Ibnu Kasir xam nga man gëstu moom ci moom mais yow mi may ay fan ngay gëstu ci moom waroon ngaa man a gis lii nga xam ne maanaam lii lii riwaaye bii ñu indi fii la ci sukkandiku Ibnu Kasir li mu indi lu tax maanaam mu ne wérut nangam la li li li imaamu Tabari yi indi li tax mu ne wérut mooy nangam la dégg nga lii nga indi ko benn par benn ci ñi ma tudd ba mu jeex waaye man maay dem di la wër li lii ak lii ak lii Alioune Ndiaye li ma wax leer na nañ sa wax ju ñaaw ji nga mënuma takkal jabar am na ci doom dama ne la dangaa indi xadis maanaam xadis bi nga xam ni moo moo ñëw ci bokk na ci fadlu ali ñi ali mooy kiy jëkka naan ca ndoxu kawsara mani la xadis yooyu bittifaaqi jamii jamii ruwaat jamii bittifaaqi jamii muhaddisin mooy xadis boobu wér lu tax dañ koo sosal yeneen bi alayhi salaatu wasalaam yow mi ni wér na nag indi sa xadis indil ma indil ma cëslaay boo xam ni euh, euh, cëslaay boo xam ni euh, kii bi la mooy muhaddisu hadihi l umma muhaddisu ni nag ci ka ana cëslaay ba ci saxaabi wala cëslaay ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yow li ngeen ni rek an amirul muminin kan kan moo ko saxi ci fan ban téere est-ce que an amirul muminin loolu loolu du silsila loolu du silsila xam nga man boo ma laajee boo ma laajee boo ma laajee xadisu man la innamal a'mal binniyaati nga ni ma lu xadis boobu wéru ma indil ma indil la luy luy wan ni wéru ma ne la Buxaari moo ni xaddasani Xumaydi Xumaydi xaddasani Ibrahima Taymi loolu ba ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax la ko wante yow ni nga ni nga bëgg a def nii boo demee ci xaw ma euh, di di indi tur yoo xam ne ñooñu duñ ay muhaddisuun duñ ay muhaddisuun seen seen ay ahadis yu ci bëree bëri ay mawdu la parce que amul cislaay amul cislaay amul sanad sanad ci boppam moo amul ci xadis bi indil ma xadis bu am sanad Alioune Ndiaye indil ma xadis bu am sanad bu wér boo xam ne Ibnu Kasir daf koo tadaif lii laa la wax xadis bu wér bul ni boo demee ci téere sàngam boo demee ci téere sàngam d' accord téere yi mën naa bëri téere yi mën naa bëri muy xadis daif loolu laa la wax yaa ngi dégg indil ma cislaay xadis bi xadis bi ci boppam moo wérul kay mën na kay li ma la wax wérul Uqayli wéralu ko Suyuti wéralu ko Zahabi wéralu ko Ibn Hibbaan wéralu ko kenn wéralu ko kenn wéralu ko ci ci borom xam-xam yi bi ittifaaqi almuhaddisiin xam nga yow da ngaa indi sa xadis mani la mani la xadis bii nga indi maanaam maanaam xadis bii nga maanaam xadisu Ali mooy jëkka naan bu yowmal qiyaamati ca ndoxu Kawsara mani la xadis boobu boroom xam-xam yi kenn wérulu ko ci ñoom zahabeeg ñoom ñëpp amul kenn kenn kenn koo ci wér zahabi wérulu ko euh, suyuti wérulu suyuti wérulu ko ibn xajar kenn kenn wérulu ko ci waaw léegi ahadis yi ci boppam kan moo parce que ñi ñi ma wax ni ñooy tax ñoom duñ duñ duñ muhaddisoon duñ duñ muhaddisoon duñ nekkul ci kutubu sunna kutubu sunna ci boppam la xadis bi néewul kutubu sunna la xadis bi néew moo xadis bi dañ ko lu tax demal ci uqayli uqayli ci boppam xadis bi nee na xadis bi dañ ko dañ ko dañ ko maanaam lu ñu lu ñu sosal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ukay uqayli saaxibu kitaabu duafa amul keneen ñoom albani ba ci ba ci albani mii ñu euh, bërki dem bi xadis bi yorul xadis moom yorul fenn du sax daif mawdu la xadis bi mawdu la ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ah imam Busayri ah ak yomb li ngay wax xadis bi mawdu la ah andi ah, ah, lu tax nga ne mawdu la fan la nekkee mawdu fan la nekkee mawdu xam nga ci alfaat yi mu ñëw sax dafa bari am na ci beneen lafs boo xam ne daf ko àndaleeg maanaam masalan eh, awalu naasi awalu naasi wurudan ala alxawdi awaluhum islaaman ali ibn abi talib kii njëkk naan ca mbalkama mooy moo mooy ki njëkk gëm te mooy Ali ibn Abi Talib dégg nga euh, euh, euh, léegi xoolal demal nga demal nga nga nga liir nga liir nga liir manaqibu eh, eh, ibnul maxaasili léegi ci gis u quinze dégg nga nu mu tuddati demal nga liir ko demal nga liir manaqibul ba tey al al alqawarismi yi léegi xadis boobu maanaam bu ñu demee ci musnadu musnadu imam ahmad musnadu imam ahmad moom wala wala istihab xanaa ñaari téere yi doo wax ne bokkuñ ci téere yi ñuy sukkandiku waaau ñaari téere yi wala maj moo sawaid doo wax ne bokku ci téere yi ñuy sukkandiku daf koo indi ci ñaari yoon yoo xam ne dafa wax ne indi na ko ci ñaari yoon yu wér bi ci njëkk mooy maanaam dafa dafa wéral góor ñi ci nekk dégg nga wala nga wala indi ci al al marqaatu fi fi fi sar'il fi sar'il miskaat dégg nga wala nga dem ci kansul umaal wala nga dem si siratul alabiya wala nga dem loolu yëpp boo demee da ngay fekk ne indi nañ ko ci yoon yoo xam ne yu wér la léegi nag yow su fekkee ne danga ngaa bëgg a wax ne wérut dégg nga du doy rek nga ne wérut yow tamit léegi lay doy nga ne wérut mooy nga ne xadis bii kat xuqay lii moo wax nangam li tax xuqay lii na xadis bi daif la mooy mooy nangam moo tax moo wax ne daif la parce que foofu la ñuy commencé ba noppi doog doog doog doog doog dugg ci dugg ci feneen waaw la ñuy commencé bu fekkee da ngaa lott ci xadis boobu ngir ñu gagné di temps ma indil la beneen xadis ñu continuer majma az-zawaid bëgg naa nga nga nga indil ma ko parce que xadis xadis bi nga wax ni gisuma ko ci ci majma az-zawaid bi nga wax ci fan la nekk ci ban gisu ak ci fan xadis bi nga wax nii ni gisuma ko ci majma az-zawaid gisuma ko ci musnad gisuma ko ci istiab istiab wax ma ci musnad ci fan la nekk ci ban ci ban ci ban gisu ak ci ban ban ban safxan bu fekkee ci ci ci istiab waaw kay indi kutub sunna ci fan wax ma ci ban téere ci maanaam ci ban juzu ak ci ban safxa nga nga la xadis bii ñëw nga xam ni ali moom mooy moom mooy moom mooy awalu naasi wurudan ali nga xam ne nga mooy ali yowma alqiyama indil ma loolu xam nga yow boo seetloo ci téere sunna yi xadis bi ñëwu ci bu fekkee ne ci téere chia yi cëslaay ba foofa amu ci cëslaay ba ba ba ca yeneen bi la muy wax cëslaay googu an amirul muminin loolu du cëslaay an amirul muminin kan mooy ñun ñun maanaam ci boppam ku wóor la ali ibn abi talib sang la wante kan moo ko génne ba ca ami ali ali nekk fii kan moo ko indi daane an amirul muminin loolu daa yomb waaw waaw imam Busayri eh, ree daf maa jàpp ci yow ndax li tax xam nga dama laa indil benn last ma ma indil la beneen last mu leer maanaam xadis bi sax damaa bëgg ñu ñu toxalu dem ci leneen parce que duñ ci gaaw a dëppoo maag yow waaye il faut ma indi la dal ma ne la nga ne ma kutubu eh, eh, sunna yi indiwuñ ko ma indi la ay kutubu sunna nga naan ma fu mu nekk man nas yi ma la indil boo demee ci istihab maanaam nga ne istihab gisoo ko fa ci gis uddee ba ci page quatre cent cinquante huit ibnu Qutayba indi na ko ci almaarif léegi nag ci tariq boo xam ne abi daawut la moo ko jëlee ci suaba mu jëlee ko ci salamat ibnu eh, Kuhayl mu jëlee ko ci hibba léegi nag sanad maanaam rijaal yi ci nekk yëpp si xaat lañ dégg nga rijaal yi ci nekk yëpp si xaat kenn moo ci ki nga xam ne am na ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko doyalal am na ñu ko taw siixal te loolu boo demee ci ahmad maanaam ci dem wala nga dem ci fadailu sahaba wala nga dem ci majmoo sawaayid ba tey bi mu génnee wax ba def ne wa rawaahu ahmad wa rijaaluhu rijaalun saxiix xayra xibba te xibba mii nag waqat wusiqa kon kay lii li la wax leer na kaanaa nag ma dem ma dem di la di la ko jëlee li yëpp may indi mënta nekk léegi nañ jàll ci beneen xadis léegi pour pour bañ pour bañ pour gagner du temps nañ dem ci xadisu tayib Abim Ndiaye yow laay laaj euh, yow laay laaj nga indil ma cës laay ndaxte kutubu sunna li ci ñëw ci ci ahadis yi nga xam ni ki nga xam ni mooy jëkka naan yawmal qiyaamati kooku loolu mooy mi ngi ci mi ngi ci muslim boo ñëwee ci saxi muslim ci kitaabul fadail yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na fu mu naan ana la bi uqri xawdi azudu nnaasa li ahli lyaman adribu bi asaaya xatta yarfadda alayhim nawawi nee na ci saaf muslim bi daani maanaahu mooy atrudu atrudu nnaasa min gayri ahli lyaman li yarfadda ala ahli lyaman wa hadihi karamatun li ahli lyaman fi taqdimihim fi shurbi minhu mujaazatan lahum bi xusni saniicihim wa taqaddumihim fi lislami wal ansar min ahli yaman fa yudfa an gayrihim xata yashrabu kama dafau fi dunia an innabiyi sal allahu alayhi wa sallam aadaahu walmakruhat wa maana eh, eh, yarfad ala an yasilu ala léegi eh, yonent bi sal allahu alayhi wa ala alihi wa sallam kon gis ngeen li mu wax maanaam kon gis nga maanaam an nawawi li mu wax ci kitaabul fadail ci sharh muslim maanaam ahlul yaman li ñëw ci xadis bi mooy ahlul yaman ñoom ñoo fay jëkka naan inna awwala man yashrabu min xawdi inna ahla inna awwala man yashrabu min xawdi hum ees hum ahlul yaman léegi nag kon ahlul yaman ali ali bokkul ci ahlul yaman radiyallahu anhu bokkul ci ahlul yaman kon xadis jilaani la bittifaaqi bittifaaqi laa wax de bittifaaqi almuhaddisiin bittifaaqi almuhaddisiin suñ la xadis xeyr saxiix ànd ak fadlu Ali may may wax ci ba léegi radiyallahu anhu Ali li mu am ci ay fadaa'il dafa bari Ali kuy naan la Ali kuy naan la ca Kawsara bu baax a baax a baax wante li nga xam ne moo ñëw ci kutubu sunna mooy ñi nga xam ne ñooy jëkk a naan ca xawdu ba muy ahlul yaman comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxe ñëw na ci ab riwaay boo xam ne yonent bi ni fuqaraul muhajirin ñaari riwaay yooyu nag mu amuñu dàqante parce que ahlul yaman min fuqarail muhajirin ahlul yaman min fuqarail muhajirin maanaam ahlul yaman dafa am fu leen yonent bi teg moo tax moo tax dégg nga an-Nawawi li mu wax li mu li an-Nawawi li mu wax daani li tax parce que jiitu giñ jiitu ci l'islam ak défendre gi ñu doon défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam amma ali mooy jëkk naan loolu ci benn ku téere sunna amu ci kon léegi du caagee ni ibnu kasir doogu moo ko tadaifal bépp muhaddis tadifal na xadis bi léegi bàyyil ma indil la xadisu tayr xadisu tayr d'accord nga ne d'accord nga ne ibnu kasir dafa wax ne wérul parce que ibnu taymiya moom daf koo dàq d'accord nga ne ibnu taymiya dàq na ko ibnu kasir dàq na ko xadisu tayr léegi nag ba bàyyil ma ñëw ci su tayr pour ñu gagner du temps parce que yow bu ma la toppee ci xadis bi ci la ñuy nekk te man sax dëgg-dëgg xadis bi sax maanaam maanaam maanaam maanaam du du du problème bi dëgg-dëgg maanaam benn rek lu ma la indil la mat na ñaar fukki hadis ak nangam ñaar fukki hadis ak nangam man na ko. Euh, Abim Ndiaye encore ma waxati la ko buñ la nee hadis wér na bul ni mi ngi ci téere nangam téere nangam yow kay na naa ma boo demee ci istiab boo demee ci al majma zawaid gisuma ko ci majmaa zawaid parce que yow da nga ni waxuma waxuma ci ci ci ci ban ban safha parce que gisuma ko ci da nga naa ma boo nee majmaa zawaid haysami nee na nga wax nassu tas haysami maanaam haysami nee na xadis euh, euh, euh, bi isnaaduhu saxiix fan la ko haysami waxe maanaam fan la haysami tas waaye ma nga ca rek ma nga ca baatu ma nga ca rek c'est vague mën naa ma nga ca daif ma nga ca xasan ma nga ca saxiix tamit mais bu fekkee ni ma nga ca saxiix da nga may tuddal nafsu tasxiixu alhaysami ci ci ci ci ah, ci ci zawaid xam nga man tuddal naa la léegi ah, riwaayatu muslim riwaayatu muslim tuddal naa la ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ah, ñooy ñooy jëkka naan ca ca ñooy jëkka naan ca kaw kawsara indil naa la riwaayatu muslim indil na riwaayatu tirmidi inna awala annaasi wurudan alayhi fuqaraau almuhaajirin ashuas ru'uusan aljamis siyaaban alladina laa yunkixuuna almutanaacimaati wala tuftaxu lahum sulub yaa ngi dégg al fuqaraa ulmadina la yonent bi wax fuqaraa ulmuhaajirin néewul baatu ali amu ci beneen beneen bi mooy ahlul yaman beneen bi mooy ahlul yaman inni la bi uqri inni la bi uqri xawdi azuudu nnaasa li ahlil yaman adribu bi asaaya xatta yarfadda alayhim ay yasiilu alayhim muslim moo ko solo kon léegi ali mooy jëkka naan baat boobu anam ci fan indil ma neel neel haysami ci fan la ko def te man gisuma ko ci fenn fenn laa ko gisul fenn fenn laa ko fenn fenn fenn léegi photocopie ko nga nga envoyé ma ko photocopie nga indi ko nii ma xool waa léegi ñëw kon bee moom dem nga moom waa léegi ñëw ñëw bee moom bul sonn bee moom dafa dafa wérul ci ci benn ci kutub sunna yi ñëwal ci xadis tayri bii nga wax nii xadis tayri bi ñëwal ñëwal ci xadisu tayri bi bi nga xam ni ibnu kasir nee nga dàq da koo dàq ba pare fekk xadis bu wér na man ñun loolu mooy suñ baasu suñ baasu débat mooy ibnu kasir dàq na te ibnu kasir lim dàq xadis bi wér na mu dàq ko lool laa bëgg nga indil ma ko xadisu tayri bi indi ko nas bi te nga indil ma tabai euh, kii tasxix bi waaw waaw bu sayri euh, maanaam yow maa maa ngi lay wax man ci xadis bëli yow nga ñëw indil ma beneen xadis xam nga même xadis bii nga wax am wax am na ci mais xadis bii nga bëgg maa xacc du ma ci ñëw parce que man xadis boobu du mooma intéressé man bi ma xeet intéressé mooy last yi ma la andil ñaareel bi ci tegee wax naa ne duma la may jabar ba pare maanaam amal la doom ci jabar ji dama laa ne téere yii indi nañ ko ba pare indi ci sanat bii ne lii wér na wax man kay li ma la ci wax leer na wax naa la xibba lañ ci lañ ci wax ci moom te am na ñu wax ci moom am ñu am am ñu ko dëggal léegi nag ngir gagner di temps nañ continuer ci xadisu tayr parce que yi ñu war a wax dafa bëri man xadis bi doylu naa léegi li ma ci wax nañ continuer feneen indi sanat indi sanat indi sanat maanaam sardu sanat ak tasxiixul xadis ak tadiifal ko bokkuñ sardu sanat sanat bi ci boppam saxaxawu man tasxiix bi da nga koy indi mu leer dama la téere téere sunna boo xam ne indi ko indiwu ko istiab bi nga ma bi nga ma kii mi ngi nii sama kanam istiab gisuma ko fi moo tax ma ne la yow téere bi ci boppam xanaa xanaa am nga photo ko yaa ngi sa téléphone ab photo ko photo ko ci photo téye nga envoyé ko wala yaa ngi wala wala foo ko mën a envoyé ci ci ci indil indil nas bi nga xam ne ci la ko alhaysami di di di di di di wérale xadis boobu maanaam xadis haysami fu mu koy wérale ci ah, majmaa zawaid yaa ngi dégg loolu sa boobu sa nga a majmuu zawaid nga wax d' accord boobu may naa la comme ne nga sa sa sa làmmiñ sa làmmiñ moo setul majmaa zawaid la léegi ci majma'i zawaid al haythami foofu la loolu laa ni page boobu indil ko ndax ndax haythami da ko da ko da ko wéral daan na xadis bi wér ni ali mooy kii jëkka naan xawdu ba comme ni mu ñëwee maanaam inna awwala naasi wurudan yawma al qiyamati al xawdu huwa ali parce que loolu dafa am ak dafa am ak contradiction bi yi ahadis yu wéy yi nekk ci muslim ak bi nekk ci tirmidi mooy awwala naasi wurudan mooy ahlul yaman comme ni ko Nawawi Nawawi comme ni ko ni ko ni mu ko sarxe ci sarx muslim photo ko nga indi waxuma la ay waxi dong photo nga indi man boo bëggee ma photo la léeg ma ma ma ma photo la waxu waxu waxu waxu euh, riwaayatu muslim bi ma indi la ko. man bu seeri waaw d'accord nañ dem ci hadisu hadisu tayr bi hadis bi yow andiloo ma hadis yow yow hadis bi andiloo ma ko fenn yow damay wax yow nga dem andil ma beneen hadis naan ma hadis bi yow hadis bi ñuy waxtaan nga ba ko fi dem yow jëli beneen hadis maanaam dugg ci internet bi rek dem jëli jëli benn fatwa rek ñëw bécc ko ci taabal ji naan nawe wi nee na loolu dafa yomb yow yow demoo nga gëstu xadis bi ma la wax yow nga dem gëstu beneen xadis ñëw indil ma ko xadis bi nga indi nii naan imaamu Nawawi nee mu ci jublu mooy nangam imaam Muslim indi ma ko loolu benn fatwa nga dem ci internet bi rek génne ko boo bëggee ma indi la bi léegi boo dafa yomb léegi te itam waroon nga cee gën a mën a def gëstu parce que bañu ma nga dem jël ko fa waaye nga def ci gëstu ba mu a leer nga wax tamit xadis booba ñi ci wax ñan la parce que xadis booba am na wax waaye bu ma ci duggee day doon coow waaye xam nga ne hadis bi am na wax léegi nag maanaam hadisu tayru bi Seydina Ali ibn Abi Talib dañoo wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko hadiyal benn tayru benn picc moo xam ne ñu wàjji la mu dal di ñaan yàlla ne yow yàlla defal ki nga xam ne moo la gënal ci sa xet wi maanaam mu ñëw bokk ak man fii kon booba génne na ci boppam ñu ne foofa booba Anas ibnu Malik moo fa nekkoon am na ci beneen riwaay boo xam ne safina la Eh, ibnu kasir dafa wax ne ibnu taymiya dafa wax ne xadis tayr bi bi ittiba wérul maanaam yóbbu na ko sax ba ne xadis bi maanaam mawdu la comme ni nga waxee parce que loolu seen seen aadale yéen salafiste yi bu ngeen di dàq xadis te mënu leen a indi sanadu xadis mënu leen di indi nangam da ngeen di dem ngeen dal di indi maanaam ma maanaam ngeen wax ci la neex rek wala ngeen xadis bi mawdu la parce que yen mën naa am amu leen xadis bi ci argument yu leer loolu seen anam la mais xadis bii indi am na wax comme ni nga duggee dem andi rek ñëw andi benn passe photocopie mënoon nga ko dugal sax ci groupe bi loolu dafa yomb léegi xadisu tayri bi yeneen yeneen bi bi mu ñaanee loolu Seydina Ali moo ñëw léegi xadisu tayri bi d'accord nga ne wér na wala d'accord na wérul su fekkee ne d'accord na wérul lan moo tax nga ne nga ne xadisu tayri bu wérul riwaaya bii riwaaya bii moo am ci kutubu sunna inni la bi uqri xawdi la bi uqri al uqur mooy ci biir a biir la bi uqri xawdi azuudu nnaasa liman li ahli lyaman adrib bi asaaya xatta yarfadda ay xatta yasiila alayhim saxiix muslim nawawi nee na nawawi nee na li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël yaman waa yaman ñu nekk ñuy jëkka naan ndaxte waa yaman ñoom ñoo doon défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo saxaaba yi ci lañ fuqaraul fuqaraul muhajirin waa waa yaman am na ñoo xam ne waa yaman ci lañ ci lañ bokk ñu ni loolu ya yonent bi daf ko da koo def min baabi raddil jamil ahl yaman comme ni ko nawawi du sama sarf de sarf nawawi dama ni la bul foye sa xel mi riwaayatu muslim laa la wax demal ci muslim nga fekk ko fa boo demee ci muslim nga fekk fa ba li loolu déedéet man lii du samay wax de man lii du samay wax yaa ngi dégg te lii nawawi sarf na ko neen wax naa la sarf nawawi yaa ngi dégg azuudu naasa gis nga azuudu azuudu naasa li ahli yaman nawawi nee na maanaahu mooy afru afrudu naasa anhu an an alxawd gayra ahli alyaman mu ni wa haadihi karaamatun li ahli alyaman fii taqdiimihim fi shurbi jëlal sa loxo nga teg ko ci ba baaraam bi li nooy wax fii taqdiimihim fi shurbi hada dalil ala anna awwala annaasi sharaaban lilxawdi jacalana allahu minhum hum ahlu alyaman xabis bi benn wax amu ci benn benn xam nga yow nag noonu nga mel maanaam loolu mooy sa problème jikko ji nag foo nga di foo nga di ko ci yow maanaam aaya alquran buñ ko indi woon bu arrangé woon nga ni aaya bi sax am na lu am ñu ci wax daal di indi ab benn bala kenn waxul ci xadis muslim bii kenn waxul ni wérul kenn waxu ci kenn waxu ci kenn waxu yaa ci wax yow yaa bëgg a balbala mais amul ku ku wuuteeg muslim ci xadis bii Tirmidi tamit Tirmidi tamit amul ku wuuteeg moom ci lii Busayri texte bii nga dem lii rek indi texte bii la man waxuma ak yow ci xadis bii waxuma ak yow ci xadisu ay ay ay fuqaraul muhajirin nag xadisu ay na na naka la yaman yeeg naa nga waxuma ak yow ci loolu xadis bii bul ma fi dugal waaye maam Busayri loolu loolu danañ ci ñëwaat maanaam bul bul wàcc sama jëmm ji yow noonu nga mel wala nangam bul yàq débat bi léegi yow da nga da nga dem rek lire benn texte ñëw sànni ñu ko texte baa nga noonu li ci li ci li ci imaamu Nawawi wax loolu nga doon jéem a leeral amul problème léegi ñëwal ci hadisu tayri bi te nga bàyyi sama jikko ji man ak sama jëmm ji nañ waxtaan ci xam-xam hadisu tayri bi da nga koo dàq bu fekkee ne da ngaa dàq ne wérut yow fan nga sukkandiku ba ne wérut waa waaw Habib Ndiaye li ma la indil dama la xam nga dañuy wax waxi kii jëkka naan alxawd nga wax hadisul xawd awalu man yashrabu alxawd يعني أول من يشرب حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم mooy xadis bi nga jëkk a wax ni ibnu kasir dàq na ko te fekk xadis bu wér na nga ni ali la ma lay indil xadis bi nga xam ni moom moo wuteeg moom moo contranteeg moom mooy xadis bi nga xam ni moo sax mooy boobu waaye xadisu ni ali mooy jëkka naan boobu laa ni wérul du xadis daif mawdu la xadis mawdu xeeru saxiix man kay li ma leer nañ li tax ma ne xayru saxi mooy kenn da koo waxul kenn da koo indiwul xay sami mi ngi wax fekkuma ko ci léegi ni nga ma indile Nawawi indile ma ko bu xay sami indile ma bu isti bu istiaab bi nga wax ni indile ma ko ni nga indee bu Nawawi léegi indil indeel indeel noonu sa tasxiix yow sa tasxiix ni Ali moom moo jëkk naan indil ma ko nga bëgg a daw naa ma kan dem xadis tay na xadis bii leer ba pare na xadis bii leer fa nga nga soog ñëw xadis wala nga d'accord ci ne xadis bi kon nga nga d'accord ni kon euh, euh, yow yaa juum wa waaye ibnu kasir juumul ma ni xadisu tayri bi xadisu tayri bi waxal xadis yow yaa iddia ni ni ibnu kasir da koo tadifal te wér na waxal xadisu tayri bi waxal ba pare daan ni loolu kër ibnu kasir xadisu tayri xadisu tayri loolu kenn ko wax wax ma xadis bi wax ma indil indi nassu xadisu tey bu ko defee ni ni ibnu kasir nee na wérul te wér na fan la wére kon yow man li ma bëgg a wax yow ma ma delloo si la ci suñ baasu wax mooy ibnu kasir dafa tadifal ay ahadis yow abim Ndiaye nga ni ahadis yooyu wér na fan la wér nag loolu laa lay laaj loolu mooy suñuy débat man ak yow fan la wére foofu laa lay laaj euh, xam nga abim Ndiaye ma waxaat la ko maanaam man xadisu maanaam turu ahadis amul benn buñ ci wax man ak yow xam nga da nga ni ma léegi ni ma xadisu tayr xadisu tayr musuma cee wax ak yow xadisu tayr baat boobu man damaa wax globalement rek man ne la ahadis yi nga xam ni ibnu kasir daf ko daf dafa ni wérul c'est parce que wérul dafa ni mawdu c'est parce que mawdu moo tax mawdu ibnu kasir du tëb di wax ci ay caax di di wax ci ay bànneexu bakkanam foofa laa doon waxe yow mi ni wér na nag yow mi ni wér na loolu laa ni la wér na googi fan la am fan la am fan la wére waaw imaam Busayri déedéet bu daw ma ci ci hadis ngay wax ak man di yow nga ne nañu waxtaan ci hadis nga ne mosoo wax ak man ci benn hadis <laughs> xam nga comme yow maa ngi wax ak yow ci hadis bële yow hadis bële andiwoo li ci borom xam-xam yi wax léegi yow da nga dem jëli beneen hadis ñëw andil ma hadis bi am na wax nga ne ma hadis booba nii laa mel bëgg a dugg ci sama jëmm ji maa bu dugg sama jëmm ji léegi nañ dem hadisu tayri man damaa jàpp ne bokk na ci xadis yu gën a wér te yi tegtale ngëneelu amirul mu'minin kon ku dàq ne xadis bi wérut man damaa jàpp ne yow da ngay dàq ngëneelu amirul mu'minin mooy amar ibn mooy mooy ali ibn abi talib radiallahu anhu ndax xadis bi am na fukki riwaaya ak ñaar yoo xam ne ci ay sahaaba la jógee ki ci njëkk mooy ali ibn abi talib nga ñaareel bi ci tegee maanaam gannaaw gannaaw sayyidina ali ibn abi talib mooy abdullahi ibn abbas gannaaw abdullahi ibn abbas yaakaar naa Abu Saïd gannaaw Abu Saïd eh, dégg nga eh, Safina Safina moog Anas bokkoon nañ ci ñu nekkoon ci indiwaa sam di ko liggéeyal gannaawam eh, Abu Tufayl gannaawam Anas ibnu Malik bokk na ci dégg nga juróom-ñaareel mooy Saad ibnu Abi Waqaas solo na xadis boobu noonu léegi borom xam-xam yi ko andi bari na Abu Naim al Asbahani andi na ko imam al Bayhaqi andi na ko xaakimu Naysaburi andi na ko. Nasaa'i indi na ko léegi ci ay riwaaye yu bari léegi nag fukkeel ba mooy Jaabir ibn Abdullah al Ansaari moom itamit indi na riwaaye na xadis boobu noonu Ibn Asakir indi na ko fukkeel bi ak benn mooy Abu Rafia ñii ñëpp tudd nañ xadis bi léegi nag su fekkee ne ñii tudd nañ xadis bi ay boromi xam-xam ñëw indi ko ku mel ne Abu Hanifatu Nuhmaan dégg nga indi ko Ahmad ibn Ambal indi ko ci fadail imam Ali te ñii ñëpp bu ñuy tudd fadail imam Ali lañ koy indi Daaraqutni indi ko Ibnu Batta indi ko léegi xaakim ñëw def ci liggéey bu am solo liggéey bu am solo bi mu def mooy lan mooy dajale turuqu hadis yépp maanaam mu nekk lu mat fanweeri nafs maanaam weer ci ay riwaayaat yoo xam ne dajale na ko léegi nag xaakim fan la ko indi ci mustadrak léegi nag bu ko xaakim indi ci mustadrak lan lay tegtale ak jamoo gi mu ko dajale lañ lay tegtale mooy hadis bi hadis bu wér la beneen bi ci tegee mooy maanaam ci riwaayaat yi ci nekk yi ci ñëw am na yuñ ci jam waaye am na riwaay yu bari yoo xam ne yu wér la te luñ mën a sukkandiku te li gën a wér ci hadis bi mooy li ëpp ci ay riwaayam riwaay yu wér la boo demee ci ibnu jarir at-tabari indi na ko dégg nga xaakim lim ci indi loolu wax naa daf maa doy. xam nga hadisu tayr boo seetloo ibnu kasir dafa dafa dafa dafa indi ay riwaayaat ibnu kasir ñëwul rek daal di jël hadis tayr sànni ci àll ba ibnu kasir dafa naqlu ay riwaayaat gisoo mu ni wa haada al hadis qad sannafa wa lahu turuqu mutaaddida wa fi kulli minha nazar wa nahnu nushiru ila cheyin min dalik qala tirmidi ibnu kasirin xaddathana sufian ibnu waqi qala xaddathana abdullah ibni moussa an isa ibni omar an sirri an anas qala kana inda annabiyi sal allahu alayhi wa sallam tayrun fa qala allahumma tini bi ahabi xalqika ilayk yakulu ma'i min hada tayr fa jaa ali fa akala maahu summa qala tirmidi garibun la narifuhu min xadis sir illa min hada eh, al wajh kon kon gis nga ak sir yi eh, eh, tudd maanaam xadis sir xam xamuñ xadis sir bi gisuñu ko xamuñu ko lu dul ci anam bii mu ñëwee wa qad ibnu kasir nee na wa qad rawa wa qad ruwiya hada xadis min gayri wajhin an anas wa qad rawahu abu yaala an alxusayn ibn hamad an shahr ibn abdillah malik an isa ibni Omar yaa ngi dégg wa qaala Abu Yaala xaddasanaa Qutun ibn Bachir xaddasanaa Jaafar ibn Souleymane gis nga maanaam noonu lay sarde ay ay ay ay ay asaanid xaddasanaa Abdullah ibn Musanna noonu la koy inde bu bu ko defee kenn ku nekk mu indi la sa sanad daan ni an Anas ibn ñëw ba ci am daan ni an Anas ibn Malik qaala uhliya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xijlun mashwi yaa ngi bi xubzin wadiya bi xubzin وضيافة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام فقال عائشة اللهم اجعله أبي وقال حفصة اللهم اجعله أبي وقال أنس وقلت اللهم اجعله سعد بن عبادة وقال أنس فسمعت حركة في الباب فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة Ah, bilbaabi fa xarajtu fa ida aliyun bilbaab waaw léegi ibnu kasir dafa indi dafa indi ay riwaayaat yaa ngi dégg dafa indi ay riwaayaat riwaayaat riwaayatul xaakim eh, ak mustadrak bul bul ñëw rek nga dal ci ibnu kasir fii laa la bëgg a waxe ibnu kasir dafa dafa maanaam riwaayaat yu bare bare bare bare indi bul ñëw rek dal ci ibnu kasir xadisu tayr xadisu tayr ibnu kasir indiwu ko rek daal di àtte ci saasi déedéet lim ci indi ci ay riwaayaat ci ay asaanit lu bare bare bare bare bare la loolu la al ibnu kasir indi ci ay kon bul ñëw rek daan ibnu kasir ma nga ne tayri wérul fan la ko waxe indil ma indi jox ma jox ma jox ma nas bi ibnu kasir ni xadis tayri wérul dafa dafa indi ay riwaayaat daani fii kullin minha nazar nazar wa fi kullin dafa ni walahu turuqun mutaaddida wa fi kullin minha nadarun nadar est ce que loolu mooy dara yoru ci xoolal li ngay wax ak ibnu kasir ibnu kasir ay asanid la indi teg loolu tabari def na ko boroom xam-xam yëpp def nañ ko boroom xam-xam yëpp def na ko indi na waxu xaakim nee na qaala alxaakim hada alxadis ala shart albuxaari wa muslim wa hada mu ni fihi nadar ibnu kasir yaa ngi dégg wa hada fihi nazar fihi nazar bokkul xadis bi wérul bokkul xadis bi xadis sànni ko ca àll ba déedéet te ñoom kenn ku moom te day indi ay asaanid indi asaanid yi nag du caage ni buñ fuñ la indil isnaad rek isnaad bi dafa wér mën naa am ñu tudd ci ay nit ñoo xam ni mu muttaham muttahamu noonu kenn du ko bul bul ñëw rek dal ci ibnu kasir daal ni ibnu kasir ma nga ne ah bidaaya wa nihaaya boo ah mbooleem ahadis yi nga xam ne dañ ko dafa ñëw ci ci ci ngëneel ak daf koo daf koo baat bi teg ne baat boobu laa bëgg a jël sànni ca mbalit la ah baax na bu dee bu dee d'accord nga ne Ibnu Kasir wéral na bi kon amatul problème jarul may di ci wax kon nañ continuer ci ci ci ahadisul muaqat maanaam hadisul muaqat léegi nañ bàyyi hadis bi parce que nangu nga ne Ibnu Kasir wéral na ko léegi kon nañ continuer bu fekkee ne nangu woon nag Ibnu Kasir wéral na ko ñu continuer man awma lu ciy wax imma nga nangu ne wéral na ko d'accord amul problème wala nga nangu ne ibnu kasir dafa daifal hadis bi ñu continuer bu fekkee daf daf wéral na ko rek man bul ma laaj dara kon kontaan naa alhamdulillah parce que hadis bi wér maanaam mooy tegtale ngëneelu Seydina Ali ibn Abi Talib léegi ibnu kasir wéral na hadis bi nañ dem ci hadisu mu akaat kon Abim Ndiaye waxal ma lu ma waxul néew ma la ibnu kasir wéral na ko de déedéet néewu ma la ibnu kasir wéral na ko kooku waxuma loolu dama la ibnu kasir dafa ni wa fi kullin minha dafa dafa ne lahu turuqun mutaaddida wa fi kullin minha nazar lii la ibnu kasir wax wa fi kullin minha nazarun loolu laa yaani ni xadis wér na déedéet ba pare yàqu xadis bi ci boppam dama cee tontoogul yàqu xadis bi buñ ko jëlee kon mooy ne ali mooy ahabu ah, bu fekkee ali mooy ahabu xalqillah ila allah kon ali moo gën a yonent bi yow yàqu xadis bi ci boppam in ñëw ci Habib Ndiaye wax wax ju bari nga may jaay rek kese wante indiloo xam-xam bu leer nañ waaw bu yi man yow lay xaar rek léegi bu dee saxal nga loolu amul problème et puis ngay ngay gaaw parce que tamit damay am ay gan ñaaral ñaaral bi ci tegee mooy xadis bi yow bul wax ne lii lay firi yow noonu nga ko déggee ne noonu nga ko déggee mais bul wax ne xadis bi loolu lay firi loolu loolu problème la bul wax ne bul wax lii lay firi ñaaral bi ci tegee mooy xadisu eh, tirmisi bi nga indi maanaam lafsu bi ci tirmisi bokkut ak bo bokkut ak bokkut ak beneen lafs yi uute na maanaam ay toujours tamit del bàyyi xel ci xadis bi lafs bi bu ñu nee lafs bi xarib la maanaam ci lafs bi wala na ak xadis bi ñaata tariq la am xadis bi am na fanweer fanweeri yoon yoo xam ne maanaam fukki saxaaba ak ñaar ñoom ñoo ko solo am na fanweeri turuq yoo xam ne nii tey maanaam euh, euh, euh, alxaakim dajale na ko ci ci ci ci téeréem boobu nu mu tuddati almustadrak léegi nag boo d' accord na xadis bi wér na amul problème man soxlu ma nga firil ma xadis bi premièrement lafz bi nekk ci Tirmisi mooy fuqaraul muhajirin fuqaraul muhajirin ahlu yaman bokk na amul dàqante ñoom ñaar bi ci Tirmisi ak bi ci euh, muslim fu beneen bi mooy matnu xadis allahuma atini bi ahabi xalqi ilayk amul noonu nga ko dégg benn déggin la am mooy yàlla yàlla nga ma indil ki nga xam ne moom moo la gënal ci sa ci sa mbindeef yi yeneen bi ci mbindeef yi la bokk kon léegi yeneen bi ali moo gën yeneen bi xadis boobu amul amul beneen ixtimaal ixtimaal bii la seetal ndax xadis boobu war naa war naa mën a wér wala mënut a wér warut a wala warut a mënut a war naa mën a wér wala warut a mën a wér xool xool ko yow léegi yow indil ben xadis bul ñu am ay gan bëgg daw indil benn xadis. waaw euh, Imam Busayri d' accord maanaam fii nasar bi yow firi nga ko parce que yow yaa firee ne. xadis bi xarib la xadisu xarib benn ci naw daif la xadis bi daif la yow yaa yow li nga d'accord mooy ibnu kasir daifal na ko rek léegi bàyyil ma ñëw léegi imaamu tabaraani yi génnee na xadis bi sanad bi eh, ki ci nekk mooy xubaydul ijli yi moo ko jëlee ci ibrahima ibnu saidin mu jëlee ko ci xusaynu ibnu muhammad mu jëlee ko ci suleyman ibnu qarm mu jëlee ko ci xatru ibnu xalif ibnu xalifa mu jëlee ko ci abdurahman ibnu abi naim mu jëlee ko ci safina lii lii benn sanad la léegi nag sanad bii maanaam alhaysami yi indi ko ma dimbale la ngir nga bañ a sonn bi mu indee xadis bi ba pare ci sanad bii dafa wax ne rijaalu tabaraani rijaalun saxiix maanaam imaamu tabaraani rijaalam yépp wér na xayru qatru bnu xalifa mu ne qatru bnu xalifa mii moo ci am wax te qatru bnu xalifa wa huwa siqa wa kon alhaysami maanaam siqaal na ko dégg nga ñaareel bi ci tegee mooy eh, maanaam tabaraani yi ci tariix bi mu ko génnee ak xaakim ci sanad bi amul wax ju ci am lu dul jihaab ibn ibn iyaad ibn abi tayba te haysami haysami dafa wax ne lam aarifhu wa baqiyatu rijaalu rijaalu saxiix léegi nag maanaam diw xaw ma ko tegtalawut ne diw mooma dafa wérul imaam zahabi yi naka noonu léegi mboolem sanad bi mu ko dafa wax ne maanaam rijaalu hada sanad kulluhum siqaatun maarufuun ñoom ñëpp siqa lañ xam nañ leen léegi nag mu ne baat bi e, bi bi mu wax ne maanaam xamut maanaam xamut e, nu mu tuddati Ahmad ibnu Iyaad mu ne falam ara min dikri bi tawsiq wala xaraj loolu gisuma ci ak ak ak ak gravité gi ci nekk waaw loolu amu amut grave waaw maanaam maanaam maanaam amul garaat ndax li tax mooy moom moom moom bi mu bi ko waxee ba pare maanaam moom imaamu Dahabi dafa wax ne maanaam maanaam maanaam maanaam gisuma ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko taw siixal waaye gisuma ñu ko jam tamit gisuma ñu ko taw siixal gisuma ñu ko jam kon kon loolu it dafay wér kon li lii lii man sa nekk xadiisu xarib beneen bi imaamul Busayri yi wax naa la ba tàyyi bul yàq suñu débat bi parce que boo bëggee tënk débat bi maa di dugg ci man bul ma jaay bëri wax wala indiloo ma xam-xam dangaa bëri wax su ma la ci fekk see rek débat bi yàqu nañ waxtaan ci xam-xam des na yeneen xadis yu ñu war a waxtaan ba heure bu ñu yàlla may ñu arrêté ñu arrêté Abim Ndiaye ahadisul muaxaat bii nga bëgg a tuumaal ibnu kasir daal ni ibnu kasir ahadis muaxaat daf koo sànni da koo sànni fële ibnu kasir wax ci albidaaya wan nihaaya ci euh, euh, euh, juzu maanaam ci jukki juróom-ñaar ci safha mi'atayn wa euh, salaasa mi'atayn wa arba salaasi maanaam ci deux cent quarante deux cent trente quatre ibnu kasir dafa ni wa zakara ibnu ishaq wa gayruhu min ahli siyar wal maghazi anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam aaxaa baynahu wa bayna nafsihi wa qad warada ibnu kasir mooy wa qad warada fi dalika ahadithu kathiratun la yasixu shay'un minha lu tax mu ni li daafi asanidiha wa rakaakati ba'di mutuniha fa inna fi ba'diha comme anta axi maanaam yonente moo ne anta axi wa wiraasi wa xalifati wa xayru yani wa xayru ummati ba'di ibnu kasir daani wa hada alxadisu mawdu muxaalifun lima sabata fi saxiixayni wa xayrihima wallahu aalam ibnu kasir dama wax lii ah léegi ibnu kasir lu mu wax te sax du ibnu kasir wax ko boo ñëwee ci ibnu xajar ci ci isaaba ñëw ci isaaba wax na ko boo ñëwee ci ibn saad ci ci tabaqaat wax na ko ibnu kasir nga ci yab rek ibnu kasir dafa ni ibnu kasir dafa ci xadis mu aaxaat bala bala nga koo tuumaal dafa ni zakara ibnu ishaq ibnu ishaq ak ñeneen nee nañ yenent bi aaxaa baynahu wa bayna nafsihi maanaam yenent bi yenent bi moom ah moom maanaam uxuwaam da ko def moo moo diggante moo boppam bon léegi euh, ibnu kasir daani wa waqad warada fi zalika ahadisu kasir maanaam xadis yu bëree bëri wér na ci ño rot na ci laay wax ibnu kasir nee na xadis yu bëri rot rot na ci wéru ci wérul benn wéru ci yu bëri rot na ci benn wéru ci kenn waxu la ahadisul muaxad yëpp a wér déedéet am na yoo xam ne wér na mi ngi ci saxi Buxaari Muslim saxiixayni am na yoo xam ne wérul moo tax Ibnu Kasir daani warada fi dalika ahadisu kasira laa yasixu shay'un minha ñu ne ko lu tax mu ne li daafi asanidiha ay asanidam ay asanidu ahadis yooyu dafa dafa dafa lompañ ak rakaaka rakaaka bi am ci ci matnu xadis bi ci boppam comme comme nan yeneen bi dañu ali ni ko anta axi yow yaay sama mbokk yow yaay sama frère wa wiraasi yow yaay ki may doon wa xalifati yaay sama kuutaay wa xayru ummati yow yaa gën sama xeet min baadi maanaam wa xayru man ummira baadi laay wax maanaam loolu ibnu kasir daan wa hada xadis mawdu mawdu pour lan amul benn isnaad bu premièrement isnaad bi benn wéru ci deuxièmement matni bi ci boppam dafa am rakaaka troisièmement muxaalifu lima sabata fi saxiixayni kon ibnu kasir ma ma ma jàll ci même ibnu taymi sax daqul jamia ahadis mu axaat keroog nee naa la ahadis mu axaat yi nga xam ne moo ci buxaari muslim yépp a wér yooyu ibnu kasir ak ibnu taymi dàquñu ci dara li ñu dàq mooy ahadis yi nga xam ne moo nekk ci moo moo nekk ci yeneen yu dul euh, euh, euh, maanaam buxaari ak muslim te ay asaani dem daif kon léegi loolu foofu tamit amul lenn luñ see jël ibnu kasir waaw léegi bu sayri ba tey rek mën nga man ngaa wax ci man lu la neex man du ma tontu ci yow ay da ngay daw ak da ngay nanga amul problème nañ continuer rek man feeg bu la neexee feeg ñeenti fan ñu ñuy tëjal groupe bi maag yow ñuy dem yow na leer ci sa bopp ne Cheikh Habib li muy wax foraat wut ko rek yow da ngaa foog ne man damaa ne ci mbalit mi rek di for di wax tey di nga xam ne lépp dëgg la ndax fi ko waxee laa la te fi ko waxee laa la ne bismillah te lay tontoo léegi maanaam euh, hadith bi ci boppam euh, li nga wax ne loolu lay firi maanaam mooy firi ne kon ali yow gën yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw loolu loolu moom nañ ci ñëw beneen affaire la loolu du ma ci dugg parce que toujours da ngay gàllankoor waxtaan bi pour ñu dem loolu loolu moom du ma ci dugg nañ ñëw imam al al al xaakim bu mu ñëwee ci al rek dafa dafa dafa nasul xadis bi ba pare wax ne maanaam xadis bi maanaam bi mu ko nasulee ba pare génnee ci fanweeri nafs ak nangam salaasina nafsan loolu lu muy tegtale premièrement mooy estinaa bi mu ci am ak dajale gi am li muy tegtale mooy wane ne eh, masalan hadis bi bu wérutoon du ci sonnee noonu benn ñaareel bi mooy téere bi mu ko indi mooy al mustadrak nga xam ne dafay dafay tënku ci sartu Sayxayni eh, mooy sant sartu Buxaari ak sart Muslim dafay wane ne hadis bi wér na beneen bi ci tegee mooy dajale gi mu ko dajale ba mu nekk fanweer na maanaam nit loolu dafay tegtale tamit ak wér ak xadis bi léegi nag imaamu a yi dafa wax ne maanaam tariqa yëpp dajale giñ ko dajale def ko ci benn musnaf boole leen loolu dafay wane na xadis bi am na asl kon maanaam xadis bi xadis bu wér la masalan bokk na ci asanid yi nga xam ne asanidul mu'tabara la mooy li xaafis ibnu kasir indi xam nga ibnu kasir bi mu moom moom si boppam indi na benn sanad boo xam ne bi mu ko indee muy jëlee ci Abu Hatim jëlee ci Hamar ibn Qalib jëlee ci Wasitiya jëlee ci Isaaq euh, euh, dégg nga Asraq comme ni nga ko waxee jëlee ci Abdou Malik ibn Souleymane jëlee ci Anas léegi moom moom bi mu indee xadis bi xoolal lan la wax xoolal lan la wax léegi soo xoolee lan la wax di nga xam ne kon xadis bi moom li ma doon wax moo ci ne mooy dafa def taasir ci Ibnu Taymiya mais moom ci jëmmi boppam moo la gën a xam ne xadis bi wér na waaye comme Ibnu Taymiya dafa bokk ci ay sëriñam te mu taqoo nag moom dafa mel ni du mën a wax ne hadis bii wér na parce que nangam ak nangam te xoolal ci kii bi mu andi benn ibnu abi xaatim huwa xaafisun siqa imaam la ku siw la ñaareel bi amar ibnu xaalid alwasiti yi kooku euh, ibnu abi xaatim euh, dégg tarjuma na ko moom tamit nee na ànd ak suma baay ci suma baay wax ma ne ma siqa la sa duuq la maanaam ku dëggu la dégg nga bi ci mooy isxaqa al asraq kooku siqala dégg nga bokk na ci rijaalu kutubu sitta loolu da nga ko nangu abdul malik ibnu abi suleyman kooku tamit xadisam lu wér la ci moom i tamit kon xadis bi lu wér la maanaam saxiihun bila kalaam am bu kon dafa mel ne daw nga ci xadisu tayri bi bul ma bul ma jiitu bàyyil ma ñëw rek danaa la tegal fanweeri xadis ak nangam kay laala wax bul ma jiitu bàyyil ma ñëw rek Eh, léegi xadisu tayri bi pare nga ci xadis tayri bi moom wér na na nangu nga ne wér na léegi sa problème mooy xadis bi mënta wér parce que li tax bu wéree dafay wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ali yoo ko gën ah tey de nangu nga loolu pourtant am na xadis yoo xam ne da ngay nangu ak wéram te pourtant bu wéree dañ lay wax ne lii bu wéree dafay wane ne yonent bi mànduwut te da loolu da nga ne wér na parce que dafa ñëw ci Buxaari yoog muslim moo tax xadis bu wane ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu wéree damay wane ñàkk màndug yonent bi da ngay wax ne hadis boobu wér na hadis boo xam ne maanaam su su wéree dafay wàññi darajaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis boobu da ngay wax ne wér na parce que lan la ñëw ne ci Buxaari ak Muslim ñaareel bi ci sa a ci sa wax bii dafa am loo xam ne indaka wa inda Cheikh Modou Kama Thiaw wa inda wa inda wa inda akthar min ulama min min min ulama ahli sunna wal jamaa wa inda ibnu taymiya wa inda ibnu kasir mooy fa kullu hadisin قال ما ma ma ma fi sahih al-Bukhari wal Muslim fa hada al xadis mawdu maanaam bépp xadis boo xam ne dafa dafa uute ak li ñëw ci Bukhari yi uute ak li ñëw ci Muslim rek xadis boobu mawdu la maanaam dootu leen wax sa xadis daif la mawdu la ngeen di wax léegi yow da ngaa wax ne Ibnu Kazir dafa wax ne mboolem xadis yi nga xam ne ñëw na ci muaqaat yépp am na tariq yu bëri jëm ci waaye mboolem turuq yi yépp falam yasix minhu maanaam maanaam maanaam maanaam shay dara wéru ci dara wéru ci kay mooy dàq na ko kon kay bul wax ne maa ko tuumaal ibnu taymiya yow xam nga sa wax dafay am tanaqul yow da ngaa wax ne maa bëgg a tuumaal ibnu taymiya hadisu mu aqaadi ba pare yow bi nga jàngee texte bi yow wane nga ci ne ibnu taymiya def ne benn tariqa wéru ci tariqa yëpp loolu la ibnu taymiya wax léegi nag nañ dem ci hadisu mu aqaad bu la neexee pourtant loolu mu ngi ko jëlee ci ibnu taymiya parce que ibnu taymiya ci minhaaju sunna noonu la dàqee hadis bi masalan ngir bëgg a dàq lim soxla ci dàq ko rek mooy ba ba dàqaale lépp mooy Ali ibn Abi Talib nekkutoon mbokkam yonentu bi alayhi salaatu wa salaam maanaam yonentu mbokkoo wutoon ak Seydina Ali loolu kay mooy dàq ngeenelu Seydina Ali. Abim Ndiaye ban xadis nga may wax nii man ak yow ban xadis nga may wax xadisul muaxaat xadisul muaxaat yaakaar naa pare nañ ci xadisul muaxaat wax nañ ci lu leer nañ ñi xadisul muaxaat euh, wax nañ ci mu leer nañ ñi Ibnu Kasir dégg nga wax Ibnu Kasir néewul ahadisu xadisu ahadisu muaxaat yaa ngi dégg newul newul yëpp yëpp a daif newul yëpp a daif daf laa indil waxu eh, ibn eh, waxu ibn ishaq la la indil indil na la waxu ibn ishaq daani eh, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam aaxaa baynahu wa bayna nafsihi kon léegi ana ali ali ñëwul foofu aaxaa baynahu wa bayna nafsihi ibnu kasir nii la ay ahadis ñëw na ci yu baree baree bari yoo xam ne wérul man li ma man sama sama mawqif rek mooy Ibnu Kasir lay lay défendre xam nga yow nee naa la nañ basé wu toujours rek yow da nga ni Ibnu Kasir mbooleem parce que loolu laa lay fàttali bis bu nekk yow da nga ni Ibnu Kasir de mbooleem ahadis yi nga xam ni dafa ñëw di wax ci ngëneel xadis Ibnu Kasir sànni génn na ko bàbb na ko sànni ko nële nga daal ci tudd xadis xadisul axaat man la xadisul axaat Ibnu Kasir mawqifam mooy indi na ci waxu Ibnu Isxaaq lu tax Ibnu Isxaaq ñëwul baynahu bayna axi ali dafa ni aaxaa baynahu wa bayna nafsihi yeneen bi aaxaa baynahu wa bayna nafsihi waaw léegi euh, ibnu kasir daan ni xadis yu bëri ñëw na ci benn wéru ci lu tax parce que asaanid yi moo daif nga dikk xaakim ma wax la ni xaakim xaakim muhaddisu ni dañ koo tuumaa ci ni dafa dafa bëri lu muy lu muy tasaahul lool lool lool lool ah, maanaam xaakim ay ahadisam yoo xam ni wérul dafa bari parce que dafay tasaahul ci ay ci ay ahadis ba pare ibnu kasir ne matn bi dafay rakaata yonent bi ne ali ni ko anta anta anta wa anta axi wa wiraasi maanaam yow yaa may donn yonent bi ni ali bu ma bu ma génnee àddina sama alal yaa koy donn yonent bi ali lan lay doonante maanaam bu ma génnee àddina sama alal yaay donn léegi yonent bi nee na nax eh, nahnu maasara anbiya laa nu ras wa xalifati bu ma génnee àddina tamit yaay sama kuutaay lu tax ali keroog ba yonent bi génn àddina waxu ko lu tax xadis bi waxu man ummira baadi sama gannaaw yaa ci gën lu tax lii xadis keroog ali ali waxu ko loolu loolu dama lay woo ci mutuuni xadis yi ñëw ci pour ni la léeg-léeg xadis da ñàkk bu fekkente ni yow gisoo asaani bi mais ñëwal ci matnu xadis bi matnu xadis xeyr nabawi matnu xadis bi ci boppam dafa dafa dafa méngoowul ak waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam parce que dafay contrant dafay contrant seeg doxalinam lii laa la wax xadisu tayri bii ma la wax laa ni la xadisu tayri bii laa ni la ma waxaat la ko ba bàyyi di ma tuumaal ci loo xam ni bàyyi di ma tuumaal ci loo comprendre ci man dama ni la ibnu kathir dafa ni la lahu xadis bi lahu turuqun mutaaddida wa fi kullin minha nazar léegi nag Ibnu Kasir lii est ce que lii li ngay tuumaal Ibnu Kasir ci ni ci ni nee na wér na wala wérul fiiha nazar lu ñuy seetaat la Ibnu Kasir lii la wax duma mës a wax ni wér na parce que gisuma lu koy wéral mat nu bi ci boppam mayu ma may may wéral xadis bi mat nu bi ci boppam parce que parce que bu ñu wéralee xadis bi mooy ni kon yonent ci kon mooy ni kon Ali moo gën ci nit ñi moo gën ci mbindee bi sax laa wax nga xam ne malaaka yi sax la ci dugg nga xam ne malaaka yëpp yëpp yonent bi da ci duggaale loolu laa leen loolu duma may may wéral matn bi kon Ibnu Kasir bu ko wérul am na fu ko teg foofu laa bëgg ñëw ak sa yow rek xam nga xam nga bu sayri <clears throat> boo gisee ma la boo gisee mën na la tafsir la boo xam ne ibnu kasir daf ko jëlee ci ibnu taymiya waaye loolu sax du jikkoom waaye dañoo wax ne maanaam sooy ànd nit dana am ay jikko yum la wàll eh, xam nga ibnu taymiya dafa wax ne wa wa wa wa wa wa wa suila xaakim xan xadisu tayri fa qaala laa yusif mu ne dañoo laaj xaakim ci xadisu tayri mu ne xadis bi wérul te wax jooju maanaam xamut fenn fu ko ibnu taymiya sukkandiku mën koo andi ñaareel bi ci tegee kul xam ibnu eh, ibnu hakim eh, ci ni muy doxalee da nga xam ne bi mu indee xadis maanaam ci ay may borom xam-xam bari dañoo wax ne hakim bi mu indee sanad bi li mu ci jublu mooy dafa wax ne dafay dafay tegtale ne maanaam sanad bi lu wér la maanaam xadis bi lu wér la ala sarti buxaari wa muslim léegi nag biñ gisee xadis bi lii problème mooy hakim indi gum ko indi léegi mënatuñoo seet nag naka la ñuy fexee ba dàq ko léegi su ko defee nag ñu ñu indi commencé nag waaw même bu ko xaakim andi daf ko indi waaye xadis bi dafa day wala nangam xadis tayri bi daal xadis bu wér a wér a wér la buñ dewee na xadis bi wér na ba pare ñu doog a dem nag ci firi xadis bi li muy firi su fekkee ne nag ah, loola leer na ñu dem ci xadisu mu àqaat ba tey bi nga xam ne yaa ngi ñëw waaye toujours maa ngi lay wax ne man tey moom du ma la mosa du ma mosa fay ci wax yi maay wax nii dama lay bàyyi ci biir rek ñu waxtaan tey moom xam rek laa soxla waaw ah, damaa bëgg tey suñu uute gi ñu uute ñu koy teg ci xam-xam te bañ koy teg ci xuloo moo tax duma la tontu benn lam du keleng boo xuloo te xuloo ma bu yàggee di nga baax. beneen bi mooy bul tuumaal ibnu kasir ci ibnu bul tuumaal ibnu kasir jëlewul ci ibnu taymiya lu dul ay ngëneel lu dul ay manaqib lu dul ay fawaid lu dul ay njariñ bul sa sonn ibnu kasir jëlewul ci ibnu taymiya lu ay njariñ ana problème ba li nga bëgg a yow li nga li nga bëgg a yow ibnu kasir da nga ko def mu def mu nekk benn nit ko bon ko benn mbalit moo xam ne ku ko jege rek daadi di yàqu loolu laatul bàyyi nga dem man xawma ibnu taymiya de ibnu taymiya bi sama sëriñ déedéet déet xawma du ko sax liiral lu bari wante man maa bëggul nit di sofantel boroom xam-xam man maa bëggul loolu man nit di sofantel di wàññ boroom xam-xam loolu laa bëggul loolu si boppam man man défendre borom xam-xam moo fi moo moo moo moo moo jur suñu débat bi man ak yow yaa ngi dégg ibnu taymiya bi mu bi mu tasir jëlewu ci lu dul nga neen kooku moom xam ko léegi moo tax man ni la bul yaa ngi jël ay nit bëgg a bëgg suufeel ay nit ci loo xam yow amoo ahliyatu di atte amoo ahliyatu di atte kon léegi ibnu taymiya lim ne ibnu kasir lim nekk ibnu taymiya kon nga bëgg loolu heureuse la maanaam yow loolu da nga koo jàpp ci ay ay man a manqasa la yow pour yow moom mooy sa problème waaw <laughs> ah, imam Busayri tey moom yaa ngi jëm xaakim yaa ngi jëm borom mustadrak tey tey moom yaa ngi koy jëm waaye suba nga suba nga tey yaa ngi koy jaraxu waaye suba bu soobee yàlla nga tawsiqal ko tey tey moom mën ngaa andi borom xam-xam yi dañ dafa bari lu muy tasaahul ndax ndek hadis bii rek ci ngëneelu imam Ali moo tax seen problème yéen du du siya yi seen problème mooy imam Ali te lool mooy dëgg ñaareel bi ma fàttali la man tamit ne la lii may def damay damay défendre Ibnu Kasir parce que nit ki wax dëgg maanaam défendre nit ki la te Ibnu Kasir yaakaar naa ne dëgg la bëgg eh, ñaareel bi ci tegee mooy jamuma Ibnu Kasir eh, ñetteel bi mooy sa wax yow dafa bëri rakkaaka hadisu mu aqaat waxaguñ ci sax yow yaa ci indi ab kii rek pareeguñ ci ba nga ne wax nañ ci ba pare ñaareel bi ci degee mooy xam nga dangaa wax ne eh, masalan Ibnu Kasir dafa wax ne maanaam ñëw na ci riwaayaat yu baari maanaam yu bari maanaam riwaayaat yëpp baatu kullu haagi kullu googu noonu lépp la wax daif la lépp daif la nag imma lépp nekk daif imma léegi nga nangu ne maanaam lépp daif la lépp daif la parce que loolu la wax soo bëggee tësatu nag na lépp googu noonu du lépp ak lépp kon hadis yi am na yu am na yu wér am na yu wérut Ibnu Kasir waxul loolu de waxul la ne am na ci minha fekkoon def la ne de maanaam ay riwaay yu bari ñëw na ci am na ci riwaay yu wér am na ci wérut bii nag mooy riwaaya anta xalifati wa si nangam boo wérut su boobaa ñu man a wax waaye dafa gola baale lépp ne wérut comme ni ko sëriñam ibnu taymiya defee loolu loolu il faut mu leer ci yow il faut mu leer ci yow léegi euh, ñaareel bi ci tegee mooy mooy mooy li ma la wax rek léegi nañ continuer insha allahu rabbi ba suba bu la neexee bu fekkee ne bu fekkee ne sonn amut wala wala wala awma leneen lu ma jàpp ñuy tëj groupe bi ma lay indil xadis par xadis te amut lu may dem di préparé ji parce que fekk na ma pare ko bu noppi bu yàgg-yàgg man li may wax dama koo xam de du lu ma faraatu de tey rek ngay xam ne lépp dëgg la yow. xam nga beneen beneen tuumaa ngi noonu beneen tuumaa ngi noonu te bu ma waxee nga ni ma danga may tuumaal danga may xomalan maanaam yow wa wax ji nga wax nii wax gënu koo rëy Ali ibni Abi Talib Ali ibni Abi Talib gënal ñu suñ lépp. sahabiyun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi dégg nga xam ni boroom xam-xam yi ku ne ku ne way na ko sama way jur nee na wa rabiul xulafa al mawla wa aybatuhu wa sinuhu sirhu sihruhu laysul malaqaati aliyun al xibru xaqan aylamul ulama baabul madinati min ilmi alxaqiqaati kooku kan moo koy sama way jur ki nga xam ne moom ci moom laa jóge moo wax lii ali ibn abi talib nga nga nga nga ne problème tuuma googu wax la joo xam ni dara du ci dëgg sos la sànni naa ko ca foos ba parce que dara du ci dëgg sos la boo xam ni dara du ci dëgg Ali ibn Abi Talib yow lay sa problème yow yaay kii ko buggul wante ñun Ali suñ bakkan bi lañ ci teg moo ñu gënal lépp moom Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saxaaba dama ni asxaabu yeneen yenent bi ay saxaabaam lan dul bàyyi kenn di ko laal saxaaba yi nag ñi ca gën Ali ibn Abi Talib mii ca bokk kon duñ bàyyi ndegam Ibnu Kasir mii la ñuy défendre waxuma ak Ali ibn Abi Talib Ali mooy seen problème boobu wax la joo xam ni dara wéru ci sànni ko ca mbalit ma wérul dara wéru ci tuuma la goo goo def lii nag sa jikko la da da ngay tuuma rek dangay tuuma rek kan kan kan mooy Ali suñ problème kan ñan ñan nga naan Ali mooy seen problème amul kenn ci ahlu sunna ku dul ni Ali da koy noyyee ndax bëgg ko bu fekkee Sénégal gii moom dama koo jëlale moom Sénégal dama koo jëlale amul kenn kenn nit koo xam ni lu dul ni wax na ci Ali ibn Abi Talib taggu ko teg ko ca kaw a kaw ñun lii lañu suñ suñu suñu mag ñi lii ñu jàngal lii lañ nàmpe ci ñoom suñ mag ñi lii la ñu nàmpe ci ñoom wante du du ay Ali mooy seen problème baatu Ali mooy seen problème yow ko nga koo bëgg da lii da koy wax li irda chia wante chia yi mënoo mënoo mënoo ñoo boole chia ay mënoo liin bu mënoo ñoo boole chia ay yaa ngi dégg suñu mag ñi saxaaba yi lañ bëgg gis nga bëgg bëgg saxaaba yi ñu bëgg ñu ngi ko nampe ci mag ñi ñu ngi ko nampe ci mag ñi bul sa sonn nga ne Ali mooy seen problème yow baat boobu xamoo sax li nga wax baat boobu xamoo li nga wax looloo hada kalam gayru saxiix gayru saxiix abadan amul ku ko amul ku wayul ali amul ku wayul ali ma ne sëñ abbas dégg nga li wax wa rabiu lxulafa almawla wa aybatuhu wa sinuhu sihruhu laysu lmalaqa aliyun alxibru xaqan aylamu aylamu lulama kooku ko kuy wax loolu kum kum kum jaboote dana dana am lu muy jàpp la yow yow li nga xam nga ko sëñ Tuubaa nee na abu sibtay abu sibtay almuxtaari wa huwa ibnu ammihi aliyun ala faxtiira nicma almujarra'u ñi ñuy wax ñun ñii ñii ci lañ jóge ñii ci lañ jóge waaye doo ñëw ba tey nga naan ma Ali moo seen problème kan ak kan la Ali nekk problème hada kalaam tuhmatun wa zuur xayru saxiix ragal ci yàlla bu baax a baax. waaw bu seer yi waaw gannaaw julli tisbaar waaw <laughs> déedéet kooku du ñeme débat koo xam ne xamul dara ñëw toog di nga ne ko acce nañ débat ci hadis rek mu ñëw toog di wax te fekk xamu ci dara kooku ñeme gàcce la def kooku du ñeme débat. Oustaz Boutayri lii ma la wax lii ma la wax duwul lu ma faraatu de ndax toogu maag yow téye ay téere di lim te lii ma lay wax nii lu ma xam la de yow xam nga loolu sax rek kay kanaa li ñuy wax rek maanaam dafa bokk ci métatu borom xam-xam yi euh, euh, maanaam maanaam Sénégal yi soo leen gañee ci débat rek ñu soppi ko xuloo bu ko defee mu jeex waaw comme comme comme comme loolu la nag moo tax ñaareel bi fañ fa muy mujj rek mooy amoo xam-xam xamoo dara lu mu yàgg-yàgg su ma la toppoon fa lay mujj waaye tey de wallahi benn bunt xuloo du ma la ko may tey moom ci xam-xam rek xaaral ma julli tisbaar waaw asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki waqul jaal xaq ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di leen ziyaara te di leen ndokkeel te di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawféex di ñaan yàlla mu dimbale ñu wan ñu dëgg te may ñu dëgg guñ ko toppee waaye mu wan ñu ay fenaki caaxaan te may ñu dëgg guñ ko ñàkk a toppee ci barke yonent bi alayhi wasalaam Eh, mbokk yi <clears throat> delsi naa beneen yoon gannaaw bu ma jullee ba pare daal di lu ba pare insha allahu rabbi ma delsi léegi imam Busayri sa audio bi de dootu la ci topp ba tey waxtaan nu ma ak yow ci Cheikh Abbas Sall waxtaan nu ma ak yow ci Serigne Touba waxtaan nu ak yow ci suñ mag ñi damay waxtaan ak yow ci hadis lii la mag ñi wax ci Seydina Ali lii la mag ñi wax ci nangam loolu waxtaan ci ak yow du ma la ci fekk. loola dama la koy bàyyee léegi ci xaddisu mu aqaad yi lañuy ñuy ñëw <clears throat> ñu ngi ci woon ba léegi dama laa wax ne la ibnu kasir li mu wax dafa leer daf ne ahadis yi ci ñëw ci turuq yépp amut ci benn tariqa boo xam ne tariqa bu wér la laa yasihu minha sey dara wéru ci loolu kon itlaaq la daf ko boyal ba noppi nag tette benn xadis boo xam ne xadis boobu moom dafa wax ne mawdu la boobu taxut ñuy wax d'accord booba sax mën naa la koo may moom na nekk mawdu eh, léegi <clears throat> xadis yi mu dàq ibnu taymiya moom daf koo dàq itlaaqan moom itamit ci minhaaju sunna ma wax la ne la taasir bu ibnu taymiya def ci eh, ibnu kasir la ma leeralaat beneen yoon ñëwuma pour wax la ne la damay naq di ibnu kasir ñëwuma pour wax la ne la damay wax ne ibnu kasir toon nit ku baax ñëwuma pour wan la ne la damaa xeeb ibnu kasir damaa ñëw pour wan la ne la ibnu kasir borom xam-xam la jàmbaar la lool tafsiram bi mustabar tafsir mustabar la ñëpp di ci sukkandiku di ci wax loolu it nangu naa ko waaye dama ne la dafa am bi muy ànd ak ibnu taymiya dafa am benn taasir bu ibnu taymiya def ci moom loolu toujours man ci tarkisaat ibnu taymiya digganteem ak digganteem ak siyaa yi daf koo yóbboo mu dem ba ci attaques yi muy attaqué siens yi ak tontu yi muy tontuwanteeg ñoom dem ba da ngay ci ibnu taymiya ne dafay naq di mbooleem ahadis boo xam ne dafa wàcc wala lu bëri ëpp ci ahadis yi wàcc di wax ci ngëneelu imam ali loolu nag dafa def taasir ci ibnu kasir ma indi la ne la ibnu kasir hadis bi ma njëkk indi muy hadisu yenentu alayhi salatu wasalam bi mu wax ne kii njëkk naan ci mbalkama mooy Seydina Ali mooy ki njëkk a gëm te kooku mooy Seydina Ali indi la ci ay mawaarit indi la ci ay maraaji yu leer naññ foofa indi nga fa sa xalaat indi nga fa sa yenn quelque wax waaye loolu amul problème romb nañ xadis boobu ñëw nañ ci xadisu tayri xadisu tayri mujj nga ñemewulaa wax ne maanaam eh, ibnu kasir dàq na ko waaye da wax ne ibnu kasir dafa ne xadis yi am na nasar te ibnu kasir wax maanaam amul benn tariq boo xam ne tariq boo xam dafa ñëw nekk tariq boo xam ne mardiyin yutamadu alayha boo xam ne nit mën na ci sukkandiku loolu amut léegi ma indi la si ay turuq yoo xam ne yu leer nañ ñi la ba indil la ci moom tariq boo xam ne moom si jëmmi boppam moom ibnu kasir indiwaat na ko ci beneen téeréem loolu leer na léegi noppi nañ ci hadisu tayri bi ñu ngi ci hadisu muwaqaat nga taxaw ne dama tuumaal eh, eh, ibnu kasir na dafa dàq hadis yëpp waaye yow bi nga jàngee sa texte mboole mboolem ku nekk ci groupe bi dégg ko li nga wax mooy ibnu kasir dafa wax ne riwaayaat yi ci waat yëpp dara wéru ci léegi ñu ngi ci hadisul muaqat léegi nañ continuer su ko defee imam Busayri maanaam ci hadisu tayrib hadisu euh, muaqat yi <coughs> euh, maanaam masaadir yu ñëw dafa bari ba ëpp waaye damay njëkkee benn rek boo nangoo ñu tëjee ci wax ji boo nangoo ñu continuer muy maanaam ahmad ibnu ambal indi na ko ci fadailu sahaba te it Ahmad ibnu Hanbal moom du génnee dafa bokkoon ci sartaam yi mu ne du génnee manaakir maanaam hadisul hadisul munkar du ko indi du andi hadisul xarib loolu boo demee ci muqaddimatu ibnu Salah ci juz trois cent quatre-vingt-dix loola la ca andi dafa wax wala quatre-vingt-quinze dafa wax ne maanaam bokk na ci ulama yi nga xam ne ñooy ulama Eh, ahlul xilaaf ñu solo ñu bari jële ci ahmad ibnu ambal mu daan wax ne laa taktubu hadihi al ahadis xariba fa innaha manakir wa amatuha min do min bu leen bind mukk maanaam li nga xam ne mooy ahadisu daifa yi ak ahadisu xariba bu leen ko bind ndax li ci ëpp dafay nekk ñu joge ci lu wérul te boo demee ci asubki dafa wax ci téeréem bi mu tuddee Shifaa'ul Asqam ci page quatre cent trente moom itamit wax ju mel noonu ne wa ahmadu lam yakun yarwi illa an fiqa ahmad ibnu ambal daawud solo ay hadis ndara ci ay siqa la ko daan solo yaa ngi dégg beneen bi ci des mooy maanaam manhaju ahmad ibnu ambal mooy du génnee hadisu manaa kii di du génne hadisul hadisul gariba léegi nag suñ xoolee ci biir loola danañ gis ne Ahmad ibnu Hanbal indi na xadis bi ibnu Taymiya dafa wax ci téeréem bi ñuy tuddee euh, al istiqaasa maanaam fi raddil bikri yi ci benn téere bu mu doon liggéey di tontu woon benn waaye bu doon wax ci Seydina Ali yóbbu nangam ak nangam xam nga moom ku wax ci Seydina Ali rek mu tontu la looloo ko indil sax ibnul Mutahir mu tontu ko tuddee ko ibnul Mundis waaye loolu tuddoon naa ko démb dafa dafa wax ba tey mu ne wa bima anna al ulama al aamiluuna bil jar'i dégg nga al al al al al aalimuuna bil jar'i wa taadil hum ulamaul hadis mu ne ulama yi nga xam ne ñooy ñi xam-xam-xamu jarhu ak taadil ñoom ñoo xam ñooy borom xam-xami hadis yi mu ne nag wa hum nawaani ñoom ñaari anam lañ am na ci ñoom kooku laa yarwi illa min siqa moom buy riwaaya ci siqa rek lay jël ñooñu nag mu lim ci ku mel ni Malik ibnu Anas lim ci ku mel ni Suuba eh, lim ci ku mel ni Yahya ibnu Saïdin lim ci ku mel ni Abdurahman ibnu Mahdi lim ci Ahmad ibnu Hambal te Ahmad ibnu Hambal lii indi na ko ci fadaa'ilu sahaaba maanaam ci yoon yu leer naññi léegi nag bu fekkee ne Ahmad ibnu Hambal dafa da nga mën a saxal ne dafa daan digal nit ñi parce que wax naa la ne wax na ne laa taktubu haadihi al ahadis xariba fa innaha fa innaha manakir waa wa amatuha min duafa léegi nag bu fekkee ne Ahmad ibn Hanbal da ngaa bëgg a yow ne daf daan tere nit ñi dara ba pare di ko def loolu nga indi ci ay leeral en tout cas yàlla dafa wax ci alquran ne ataamuruuna a bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaqiluun ndax da ngeen di digal nit ñi ak mbaax ba pare ngeen bañ koo dikkee yéen Ahmad ibn Hanbal naka lay digalee ay taalibam ne leen bu leen bind ay manakir bu leen bind xaraayibul hadis nag ba pare moom mu retourné di ko bindaat loolu mënta nekk te sax na ci sukki sax ne moom lam yëkkun yarwi ila an fiq te moom riwaayé na xadis bii nga xam ne mooy xadisu tayri bi ci téeréem bi mu tuddee fadaili sahaaba bi mu ñëwee ci saydina ali ibn abi talib léegi loolu yow loo ci wax waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mara oxra euh, Abim Ndiaye bul indi problème ibnu taymiya ñëwal ci ibnu kasir bi nga waxoon ñëwal ci ibnu kasir bi nga waxoon te li ma waxoon ci mag ñett boo delluwaatee ci li ma waxoon ci Ali ma delluwaat ci ma waxaat parce que li nga wax ci Ali da nga ni yéen Ali mooy seen problème wax jooj nag wax ju rëy rëy la daf daf ñoo engagé daf ñoo ci suñ xol yi la la dal daa ni Ali mooy seen problème mais mu mel la ñun dañoo noonook Ali laa lay wax ñi la ñun ñooy ñan ñun ñooy ñan bu ma nee ñun mooy ñun ñi nga xam ne ñooy waa tasawuf bi add bu Sénégal gii fan leen jële bëgg saxaaba yi loolu laa doon xamal yow xam nga ko beneen bi mooy yow ibnu kasir euh, xadisul muaaxaat ibnu kasir lim ci wax sëñ bi wax naa la ko ibnu kasir wax na ci xadis muaaxaat daal ni lu wax nañ ci lu bari maanaam ñëw na wax nañ ci ay ay ay ay ay euh, ahadis yu bari yoo xam ne ñëw na ci yoo xam ne benn wéru ci bidaaya wan nihaaya ci deux cent trente-quatre nee na warada fi zalika ahadisu kasira ahadisu kasira ñëwul waxul kullul ahadis dafa ni ahadisu kasira laa yasixu minha shay li baaxi asanidiha warakaakati baadi mutuniha warakaakati baadi mutuniha mu ni fa inna fi baadiha maanaam yenn mutuni mooy anta axi wa waarisi wa xalifati wa xayru man ummira baadi loolu mooy lan yeneen ci moo ni Ali yow yaay sama frère yow yaay ki may doon sama gannaaw yow yaay sama kuutaay yow yaa gën ci ñi nga xam ne ñoom lañ jiital waaw léegi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam du ko ñuy doon yeneen bi ba ba ba maanaam Fatima diggante Fatima sax moo moo moo demoon pour jël ndonal ba pàppam Aboubacar ni ko yeneen bi dëkk moo ni moon maas nahnu maasa inna maasa al ambiya laa nuuras maa taraknaahu sadaqatun kon xadis boobu noo ko dëpp noo noo ko dëkkee gi kon i kii bu ko ibnu kasir ne bu ibnu kasir ne loolu wérul c'est parce que am na fu mu ko teg ni wérul ay asaan yi dem wérul mutuun yi ci boppam dafa am rakaat kon bul ni ibnu kasir wéralu ko effectivement xadis bi mawdu la du daif de mawdu la kon xadis bu mu aaxaat mais xadis bu mu aaxaat am na lu ñëw ci ci buxaar yi moo tax ibnu kasir daani wa hada wa hada alxadisu mawdu muxaalifun lima sabata fi saxiixayni wa gayrihima kon bul bul jaxase ibnu kasir dàqul léppi a lépp léppi mu aaxaat yenn ahadis yi nga xam ni asaan yi dem wérul ak mutuun yi nga xam dafa am rakaaka am nakaara yooyu la ibnu kasir yi mawdu xam nga ni anta axi wa waaliti wa xalifati wa xayru man umira baadi xadis boobu nan lay wéree yonent bi du ku ñu doon sallallahu alayhi wa sallam kon xadisu xadisu mu aaxar moom amul luñ ci taan ibnu kasir ba pare ba pare yow nee naa la da ngaa cité ibnu kasir waaye alxaafis ibnu xajar lu tax waxoo fi isaaba boo demee ca juz bu njëkk ba te cinq cent soixante eh, eh, ibnu ibnu ibnu ibnu ibnu xajar mu wax ibnu xajar wéeralu ko dafa ne laysa fiha ma yasix yow ahmad ibnu xambal lan lan moo lan moo ko indi fii Ahmad ibnu Hanbal dama def daan tere nit di ko def ya dégg ma wax loolu man loolu mosuma koo wax mosu af maanaam turu Ahmad ibnu Hanbal ci boppam moo amul fii ma ma jël siwaat ci suñu baasu débat Habib Ndiaye xoolal li ngay wax suñu baasu débat du problème mu Ahmad ibnu Hanbal wala Ibnu Taymiya suñu baasu débat yow yaa wax sànq nga ni Ibnu Kasir de lépp bépp xadis boo xam ni ñëw na di wax ci ngëneelu Ali Ali ibnu Kathir bab bi na ko sànni fële ca àll ba loolu laa ne nag wérul nag ma ne la ahadis yi nga xam ne ibnu Kathir daf ko daf daf ko dafa ni wérul c'est parce que wérul moo tax bu fekkente ne yow gis nga ni wér na indil ma luy luy luy noonu luy wan wér na ma par exemple anta axi wa waarisi wa xalifati wa xayru man ummila baadi hadis bii ibnu Kathir nee na mawdu yow indil ma fu mu wéree indil ma hadis bii fu mu wéree anta seet ko xadis bi nga xool nga indil ma fu wére ibnu kasir nee daif mawdu laa wax sax mawdu léegi indil ma fu wére ibnu xajar nee na ibnu xajar nee daif ibnu ibnu saad ne fi tabaqaat nee yow nag indil ma fu mu wére te bul ci cité ibnu kasir donc waxal ñeneen ñi xam nee nañ wéru kon xadisul mu axaar moom jëru nga ci sonn parce que ibnu kasir moom daf cee set nga xam ne moo ñëw ci al bidaaya wa nihaaya ci ci ci ci ci page euh, deux cent trente quatre ci ci juz u um, ci ci ci euh, jukki juróom-ñaar mooy dafa indi wax waxu ibni ishaq après mu daani waqad warada fi dalika ahadith ahadithu kasira la yasixu minha shay li daafi mu asanidiha wa rakaakati mutuniha loolu mooy dara wéru ci am na lu ci wér mooy li ne ci ñëw ci buxaari kon amuñu problème ibnu saad ibnu saad ci boppam xadis bii ma ma mala ibnu xadis mu axaat yi nga bi nga xam ne dafa ñëw an tariq Muhammad ibnu ibnu Umar yaa ngi dégg ibn Ali mu ñëwee ci ay ay alfaaz muxtalifa ñëw ci ñaari tariqa ñëw ci ñaari tariqa yaa ngi dégg lu mu wax dani wa fi ixda wa fi ixda tariqayni waaxidi wa huwa matruuk nii lañ koy defee gis nga xadisul mu axaat yi bu passé yi nekk ci saxiixayn ay waxante la ay ay werante yenn yi mawduu la yéen ñi dañ naan diw matruq daif yaa ngi dégg yéen ñi dañ naan mawdu yéen ñi dañ naan daif wante du xadiisu mu aaxaad yëpp même li fi ci saxiix ay ni la ibnu kasir dàq déedéet parce que ibnu kasir moo ni muxaalifu lima fi saxiix lima sabata fi saxiix ay ni wa gayrihima kon lu tax muy muy ñëwaat daal ni benn wéru si wante nag am na yoo xam ne ñëw na ñëw yoo xam ne wax nañ ko laysa laha asal loolu la ibnu kasir wax yi nga xam ni ñëw na te wérul loolu la ibnu kasir ni wérul yow nag man li ma lay laaj mooy yi nga xam ni ibnu kasir nee na wérul indil naa la xadis anta axi wa waarisi indil ma fan la wéree xadis bii fan la fan la ko imam ahmad ibnu hanbal waxe kenn wax ko xadis bii anta axi waxuma yëpp imam ahmad ibnu hanbal xëy na indi na xadis mu aaxaat loolu man d'accord waaye waaye wante wante bii ma la wax nii nga xam ni ibnu kasir dàq na ko ni mawdu indil yow fan la wére hadis bi bi zaat anta axi wa waarisi ibnu kasi ni mu ko ni comme ni mu ko indee ci bidaaya wa nihaaya bu sama sago doo jaxase ñaar yu bokkul doo jaxase bul ni ma yow yaa wax imam ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal sax dafay amul benn wax man amul wa benn wax buñ ko fi wax maanaam am wax amu fi fiñ commencé mooy xadisul xawdu ali mooy jëkka naan ci xawdu ba nee naa la xadis boobu dafa nekku sax ci kutubu sunna nga ma nga ni ma mi ngi ci ah, ah, majma al haythami fekkuma ko gisuma ko yaa ngi dégg ah, nga ne mi ci istiab waxoo waxoo ma ci fan la nekk ci istiab gisuma ko fan waaw léegi ahadis yi nga xam ni mooy kon léegi ahadis xawdu moom li nga xam ne moo moo ñëw ci muslim mooy waa yaman yooyu jëkka naan ñëw na ci tirmidi mooy fuqaraaw ahlil fuqaraul muhajirin léegi nag ñu ñëw ci xadisu tayr xadisu tayr nee la mat ni bi ci boppam nee naa la mat ni bi ci boppam bàyyiwul ibnu kasir mu ni wér na parce que mat ni bi boo jëlee mat ni mooy yàlla ki nga xam ne moo gën ci sa mbindeef fii yàlla boo yàlla nga mu ko indi ñu mu bokk man far ali dik kon ali moo gën ci mbindeef fii kon noonu la noonu la yax di tu bi mënoo koo ta wii la neen lu noonu loolu moo tax nag loolu bàyyiwul ñu bari wéeral xadis bi da duñ ko taslim riwaaye boobu dañ naan fii nazar fii nazar lañ wax moo tax ibnu kasir dafa ni wa fii kullin minha nazar kon ibnu kasir bul ko tuumaal foofu beneen bi mooy xadisu xadisu mu axaat comme ni ma la ko waxee xadisu mu axaat bi ibnu kasir moo ko moo ko dàq euh, ibnu xajar dàq na ko tamit te ibnu kasir xadisu xadisu mu axaat bi nekk ci euh, buxaari muslim saxal na ko moo tax mu ni muxaalifun lima sabata fi fi buxaari muslim yi nga xam ne dafa am rakaaka ak seen ak yi nga xam seeni asaanid wérul la ibnu kasir dàq te loolu moom maa la ko wax ni la parce que daf ko war a dàq waaw imam Busayri ba tey léegi tey mën nañoo juboo bu fekkee ne benn xadis boobu ngay dàq muy antawaari si boobu ngay wax nga bëgg a dem sukkandiku ci yeneen xadis laa nuura subaadi loolu buñ ci duggee dafay indi beneen problème léegi yow benn da ngay saxal rek wala nga dàq masalan tey ibnu kasir dafa wax ne maanaam am na riwaayaat yu baari yu ñëw ci ne yenentu alayhi salaatu wasalaam dafa mbokkoo ak ali ibn abi talib loolu nag riwaaya yooyu yëpp li ci ñëw laa yasihu minha shay xam nga nit ñi dégg nañ arab dara wérut ci léegi nag nga ne kullu googu noonu maanaam du kullu goo xam ne dafa dajalee kon am na yu ci wér waaye li ëpp ci riwaaya yi wérut ci léegi andil ma kon benn nga ma andilaale boo xam ne wérul léegi andil ma ci fukk gannaaw maanaam maanaam turux kasiir la wax yow benn tarixa rek nga indaale mooy bi ñëw ci Tirmisi noonu léegi wala benn tarixa rek nga indaale léegi andil ma ci ñetti tarixa wala ñeent comme lu bëri la war nga cee mën a andi ñeent wala juróom ba buftu wala doo ko andi léegi ñaareel bi ci tegee maanaam yow kon saxal nga ne am na riwaay yu wér andil ma riwaay yu wér yan la andil ma riwaay Muhammadul Busayri andil ma riwaay yu wér ci ne maanaam mu aqaat yi am na léegi kon ibnu kasir am na riwaay yu mu saxal andil ma ko andil ma benn nga ma andilaale muy anta waaris yi dégg nga moom nga dàqaale léegi andil ma juróom yoo xam ne riwaaye lu ci ñëw te wérut wala juróom benn ci ay tariqa waxuma nga ni ma be ay tariqa juróom parce que dafa wax ne tariqa yu bari dara wérut yow loolu nga wax nga ne nga ne kulluhaa googu maanaam du kullu goo xam ne dafay labal lépp waaye kullu goo xam ne dafay xaaj lenn li la kon lenn li wérut lu bari la léegi lu bari loolu wérul lan ak lan la. Abim Ndiaye yow yow sa wax ji yow sa bopp déggoo ko maanaam yow sa waxu bopp sa wax ji jaxasoo na jaxasoo boo xam ne yow sa bopp comprendre li nga wax yow yow comprendre li nga wax parce que ay tanaaxut ay tanaaxut doog moo ci am maanaam tanaaxut ay contradiction yow ci ban xadis yow da ngay da ngay da ngay ñëw ci xadisu xadisu euh, xadisul muaaxaat génn fa dem ci benn xadis yow xadisul muaaxaat man bu ma la bu ma yow danga nga ni xadisul mu aaxaat yi nga xam ne yonent bi daf koo wax eh, eh, eh, di ci wax ngëneelu Ali ibnu Kasir lépp daf koo dàq man mani la ibnu Kasir dafa ni am na yoo xam ni ñëw na yu bari yoo xam ni wérul waaw léegi nag am na ci yoo xam ne léegi nag du yow yaa may laaj ma ma ma la koy nettal lépp am na yoo xam ne ñëw na da bëgg ma wax la bu wér ñëwal ci saxi Buxaari Muslim ma wax la bu wér a wér a wér da ngaa bëgg ma wax la boo xam ni mawdu la mooy bi ma wax bi ma wax léegi anta axi wa waarisi wa xalifati wa xayru man ummila baadi xadis boobu xam nga ni mawdu la laaj yeneen yu mel noonu te kooku misaal la rek du man maa lay indil ay ahadis yoo xam ni ibnu kasir li ma bëgg a saxal foofu rek mooy ibnu kasir néewul ni ahadis yëpp yëpp yëpp wér yëpp yëpp yëpp yëpp benn wéru ci déedéet ahadis bu mel nii nga xam ni dafa am rakaaka ci matnu bi ba pare am ay baas ci ci ci asaani bi baas yi nga xam ne moom la moom moo am ci asaani yi na yooyu wérul comme wérul nag nu ma nu ma lay nu ma ko indile li nga xam dafa am asa dafa am ay baas ci asaani yi wérul am am ay mat ay matin ci am rakaaka léegi nag yow yow mi yow yaa ma yaa ma ameel indil ma xadis bi yow yaa ma ameel indil ma xadis ba ni ma xadis baa ngi nii wér na diwoo ko solo jële ko ci diw jële ko ci diw jële ko ci ba ca yeneen bi alayhi yow yaa yow yaa ma ameel indil ma loolu yow man dem naa ba indil la sax xadis boo xam ni mawdu la indil naa la ko ni la xadis bi amul amul non seulement amul ci saa wante dara wéru ci mawdu la kon kay yow yaama ma ameel indil ma xadis boo xam ni da naa naan waaw xadis bii li ma laaj mooy da nga naan ma xadis bii wér na te Ibnu Kasir te daifal na ko léegi nag ñu ñu dem ci ni mu wéree bu ma demee ba xam ne xadis bi vraiment wér na te ibnu kasir tadifan la ko ma xam ne foofa moom yaa fa yey ibnu kasir wante bañ commencé ca takkusaan fii ci heure bi heure Sénégal bi tucbaa foofu ci yéen ba fii may waxee yow nii indi indi la góoma loolu te li ngeen mi ngi ci mi ngi ci istiaab mi ngi ci istiaab nekk ci loolu la loolu photo goomu ko copie photo goomu indil indil ma ko ci envoyé goomu ko ba léegi loolu maa laaj bul bul jaxase mbiri